alors euh, yow bokk nga ci ñi layool aji Sarr tey nag euh, usman Sonko dem na ci tribunal ñuy xaar nag xam naa yeneen c'est beneen euh, wàll ci procédure bi mooy confrontation yeneen yu ni mel en tant que avocat boo xamante ni ci parti civile bi la nan nga gisee tey audition bi nga xamante ni ñu ngi koy déglu Ousmane Sonko. tey moom en tant que avocat. comme ñooy politiciens yi dinaa fekk di wax kenn ñëw du avocat. non seulement man dama nekk avocat ci dossier bi xam lu ci biir li ñu wax yëpp léegi ki wax léegi waxul benn yoon dëgg li xamu ci daara ay certificat médical ak ay ay ay grossesse xamuñ ci daara dossier bi yàlla secret de l' instruction aw ma wax ci moo tax du ma wax en tant que avocat mais danaa wax nag en tant que homme politique bu xam dossier bi damay du wax ci dossier bi. homme politique bu nekk benn bokk yaakaar ñu leeral ko am déet. voilà bu nekk benn bokk yaakaar ñee nekk opposition wax lu leen d'abord bu ñu manipuler opinion bi nee na comme dossier dafa vide day nañu relaxé ko te kii moo nul te jugement amul ba ñu relaxé te dañ koy entendre xam nga bu ñu entendre une première fois mooy première comparution dañ lay wax ni notifié nañ la lii lañ lay topp après la da ngay dem prison wala am nga liberté provisoire wala am nga contrôle judiciaire dañ la owaat te owaat bi la owaat bi yéex benn décision benn décision di ci amul dem prison amul dara lu bees boo paree da nga ñibbiwaat sa kër ñu jéem a gëmloo Sénégalais ci manipulation yi rek que comme le dossier pour ñoom le dossier vide ci seen fenn yooyu bu fa jógee day ñibbi rek dañu ko relaxé comme ça bu génnee ngoon ñibbi ñu ne waxoon nañ leen ko affaire bi c'est vide xoolal ni ñu manipuler ni ñu jaay alors que buñ la waatee dañuy xóotal may la nga ko bëgg a bëggal lii ñuy lañ bàyyi kàcc yu rëy yi audition simple la. interrogatoire au fond mooy bi ba dañu xóotal affaire bi laaj ko ci point yëpp ñu ko boppale dama ñibbi amul benn mënul dem prison tey c'est pas possible kon bu gëmloo Sénégal mais bu dee ni benn jéego la pour mu war a dem prison ëllëg nag du benn jéego ku ñu woo tribunal de confiance escroquerie vol lu mën a doon il faut ñu entendre au fond bu dee da nga juge c'est pas une première fois bu ñu doxaloo nit ñi kat saana. léegi maître mu bëggoon na laaj. sa sa loolu leer na ba loolu leer na. léegi sa kon su loolu leer na maître ma bëggoon a xam sa sa sa cliente sentiment bi mu yégée ni tey jii woolu nañu Ousmane Sonko e ginnaaw gi sax dem na ci tribunal tribunal ndax déggante ngeen bu dee déggante ngeen sentiment moom laal la ah Ousmane Sonko kay waroon na ko intéresse ndax ñoom ñaar ñoo nday mbili. non intéresse na ko yoon ma ko yoon la bëgg mu àtte ko moom tur bi di Ousmane Sonko ñoo ko kon comme journaliste dañu foog Ousmane Sonko di ko topp di ko tarbiyu moom nee ko ci loolu moom si da koy multiplier par zéro géré wu ko. ñu ngi jaajëfal bu baax maître El Hadj ñu ngi lay jaajëfal maître ñu ngi lay jaajëfal maître daam ñeneen ñu nekk ci buumu jokkoo bi maître El Hadj euh, yow rek nekkoo ci buum bi am na ñu nekk ci ginnaaw ñoo xamante ni war nañoo mën a waxtaan ak ñun ci édition spéciale bi di fàttali ni. yéen a ngi déglu rajo Futurs Médias ñuy waxtaanee mbir Ousmane Sonko kon nag egg na ca tribinal bi 11h tegalee fanweeri simili ak juróom-ñaar. bu ñu sukkandiku ci ndawal RFM kenn ci ndawal RFM di Sabar Ba am na mouvement bu am sànq nag xamul lan la mi ngi koy gëstu xam naa bu ci kanam ñu làmbaat sabar xool ba xam mouvement boobu nga xamante ni signalé woon na ko ba ñuy tàmbali lan moo ko waral buñ ci noppee dañuy dem ànd ak Daouda miin mu wax ñu ci procédure moom nag journaliste la waaye